ok alhamdulilah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñi ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala mi ñu wërsëgalaat ñu daje ci am néegam fas yéene jël benn bind te la nga xamee ne nii mooy ab téeréem wala boog benn bind ci wàllu fiq ñu koy sukkandikoo ci téere bi nga xam ne mooy minhajul muslim bu abu bakar aljazairi rahimahullah ñu ngi waroon a jël tey la nga xam ne moom la ñuy tuddee aljuala waroon caa teg alxawaala waaye dañoo gis ne loolu nga xam ne mooy aljuala mooy jamono léeg-léeg day soppeeku ba yu bari yu nit ñi daan aajowoo dañuy dem ba jamono dox ba xaw koy romb te mooy bari woon na loolu ci jamono xatta sunu maam yi rek koo xam ne bu amee aw façon bu réer wala jaamam bu rëcc wala nangam danaan ko ma ko ma defal nangam day danaa ko fay nangam ñu siiwal ko ci pénc ma waaye loolu sunu jamono tey jii daanaka liñ koy gis bariwul ala kulli xaal dañu mën a wax rek lu mën a nekk la mooy nit ki daa di am loo xam ne da koo aajowoo mu ne nangam day ku ma ko defal danaa ko defal nangam loolee bu ko siiwalee mu am ku jóg def jëf joojee masalan sama oto day dafa réer képp koo xam ne nii indi na ko gàddul naa ko cent mille francs benn waay xëy xëy xëy ñëw na la ah sa oto ba day gis naa ko place sàngam ku mel noo ni cent mille francs yi day doon loo xam ne luñ ko war a jox la cosaan ba mooy yeneen ci yàlla yuusufa ba mu bëggee téer frère am ba dafa jël nattukaayu buur ba def ci ay bagage am gannaaw ba mu ne nattukaayu buur bi de sàcc nañ ko waaye képp ku ñu xamal fu mu nekk danaa ko jox ximlu ba iir mooy gileem gu ñu sëf sëfub gileem danaa ko ko fayee kon loolu lu mën a nekk la ñaareel bi ñu waroon a jàng mooy lu jëm ci wàllu alxawaala mooy nit ki tey ji saalix bi daf ma yoral bor mi ngi noonu wala boog saalix bi dama ko yoral bor mu ñëw di ma topp si ma ne ko kaay bilaal mii de yoral na ma bor léegi nag sa bor bi demal bilaal fay la ko loole da ngay gis ne ay acte la yoo xam ne sharia da koo saxaloon waaye daanaka jamono tey jii jafe na lu mel noonu ñu koy gis looloo tax xëy na bu amee question yu ca aju luñ ca xam ñu wax ko waaye ñu ngi bëggoon rek ngir gagner temps ñu jàng li nga xam ne suñ jamonoy tey moom dañ koy jëfandikoo lu bari looloo tax yow mi yor sa téere nga xool al maadatu sabia mooy fi damaan wal kafaala mi ngi noonu mi ngi nekkoon jumlatul uqud nga xool al maadatu sabia yo mu yoro français bi nga xool chapitre sept ci bunt bi ñu toll da ngay gis mu wax juróomi mbir yum ci war a jàngale mooy fi damaan mooy nit ki ñëw garanti benn mbir al kafaala sorewul ak damaan te mooy nit ki daa di ñëw ne moo jël responsabilité def na ngam gannaaw ba a rëhn mooy tayle ba ñuy tayle alwakaala mooy la nga xam ne nii kóotaay gu la keneen di wuutu wa sulxu mooy yéwénal ga ñuy yéwénal naam su dee bokk nañ ko gis day wax kon addamaan fan nan la ko lislaam gisee yow mi yor sab téere taarifuhu addamaanu taxammulu lxaq xaqi an man huwa alayhi su ñuy wax la nga xam ne mooy gàddu ca mooy garant mooy nit ki am àq boo xam ne moo ko waroon a def yow nga ñëw ne àq boobu gàddu naa ko na doon loolu wa zalika ka an yakun ala shaxsin xaqun mi ngi mel ne benn waaye ngi am àq boo xam ne dafa nekk ci moom bor la bu mu war a fay liggéey la bu mu war a liggéey fa tuuliba bihi ñu sakku ci moom loolu fa yaqula axir jaisu tasarruf mu daal di wax keneen koo xam ni jëflenteem l'islam nangu na ko huwa alayya aq boobu gàddu naa ko wa ana daaminuhu ca man maa koy garanti fa yasiira bi zalika daaminan noonu lay mujjee kon doon koo xam ne mooy kañuy wóolu muy garanti aq boobee wa li saaxibi alxaqi mutaalabatuhu bi xaqihi su ko defee ka moo mën aq ja day wëlbatiku di ko sakku ci aqam wa in lam yafi bu ko matalul taaliba saaxibu alxaqi almadmuun mu delluwaat ca ka nga xame ne nii mooy borom àq jëñ gàdduloon loolu kon mbokk ci ni mu ko jàngale rek islaam day bëgg lu ci bari luy jur jàmm ci ay nit masalan tey benn waaye ngi nii sunu mbokk bi Xasan mi ngi ci nettali bu yàggul benn menuisier ngi nii ñu ngi ko jàpp tëj ko ci prison bi ngir laa waroon liggéey liggéeyu ko léegi bi ñu ñëwee frère bi moom taxaw ci kanamu commissaire mun a bàyyi leen ko man danaa ko liggéey ci délai tel signé loolu ñu génn frère bi mu dem kon nit loolu ki nga xam ne dafa am bor ñu topp ko ci bor bi wala liggéey bu mu war a liggéey ñu topp ko ci loolu ba mu nar a jur fitna keneen koo xam ne moom wóolu na boppam ci ne loolu mën na ko mën na ñëw ci ki kay topp ne ko kat bàyyi ko nga topp mu mën lii dinaa ko def délai boobu mu waxee bu ko deful waa ji am na droit topp ko su ko naree indil fitna mu delluwaat ca ka nga xam ne nii moom moo ko yeeyo woon àq ba ca àq bu jëkk ba ñu ngi noonu léegi nag loolu luy atteem ci lislaam mooy xukmuhu الدمان جائز لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بئير وأنا به زعيم mu ne buñ gisee garanti benn mbir loolee lu mën a nekk la ndax li ma leen wax sànq ci la nga xam ne nii Yuusufa waxoon na ko mu ne képp koo xam ne indi na nattukaayu buur bi daañ ko jox giléem gu ñu sëf man nag may ka nga xam ne may daami du maa ko garanti te may ko nattu baay buur baa ngi nii sàcc nañ ko am na benn waay ñëw na feeñal na ko kan lay topp yuusufa ne man mii lay topp ana bihi zaim yaani daaminun aw kafilan mooy man maa ko gàddu ay man may nekk responsable ci loolu ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم yonent bi alayhi salaam nee na képp koo xam ne moo gàddu responsabilité na xam ne gàddu na bor ay loolu bor la ci moom mu ne rek li tubaab yi di tudd naan la promesse est une dette ñu ngi noonu bor la ci ci moom illa an qaama ahadukum fa dammanahu xanaa lu dul koo xam ni dafa jóg daa di garantir loolu loolu fi rajuli yonent bi waxoon na ko ci góor ga nga xam ni fi rajuli lazi maata wa alayhi dayn góor ga dee woon bàyyi ay bor wala wafaa lahu ca amul lum ko fay famtanaa min alsalaati alayhi mu bañ koo doon ku koy julli kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko indil benn waay mu ne waa ndax bàyyi na ay bor ñu ne ko ax kay am nay bor de mi ngi noonu bàyyi na ñaari diinaar mu ne ndax bàyyi ñu lu mu ko fay ñu ne ko déedéet mu ne kon de man duma ko julli xanaa lu dul ne kenn ci yéen moo ko koy gàddul waaye tànk mi ngi ci moom man duma ko julli ca la benn sahabu ñoo abi qataada ne ko yu mu yàlla yónni jullee ko bor yi gàddu naa ko loolu da ngay gis ni lu mën a nekk la allahuma lu dul waa ji gàddul nga ko ne da nga ko fayal ay bor waaye balaa mucc dëgg da ngaa fay bor ba te loolu it di mbir boo xam ne léeg-léeg heure bu ñu jullee benn néew benn caaman dana jóg waaw bor yi mu am gàdd naa ko waaye ngal la waay mbokk loolu it na nga ko topp bu baax yaa gàddu ay borom fexeel lijjanti bor yi la nga ca mën nga def ko te la nga ca mënul nga diisoog mbokk yee ba ñu fay ko ndax responsable nga ci ca ñàkk fay ga ngeen ko ñàkk fay loolee it da ngay gis ne da dul muccal néew ba néew ba balaa mucc dëgg-dëgg ñu fayal ko ay borom loolee ñu bàyyi ci xel bu baax mi ngi noonu kon loolu mooy atteem ca boo déggee ñu ne xukmuhu mooy luy atte mooy lu mën a nekk la ndax atte sharia day doon lu dagan am lu xaraam am lu ñuy sib ak yu ñuy sob kon mi ngi noonu axkaamuhu axkaamu damaanun hiya ana yenn atte lañu mën a gis ci ki jóg di garanti nit awalan yu'tabaru fi damaan rida daamin amma almadmuun fala ibra bi ridaahu mu ne bu dee ne nit ki day jóg di garanti keneen la ñuy xool mooy ka koy garanti ndax d'accord na pour garanti ko amma ka ñuy garanti moom kooku kenn du wax ay mbiram maadaama fayul aqu jàmbur ba lottu ca su keneen jógee ne da ko koy fayal du taxaw na ko dooma fayal ndax lu dul moom mu fay waaye fayoo ba pare ne kenn du ma fayal loolu moom duñu duñ tapp ay waxam ñu ngi noonu ñaareel bi yu'tabaru fi damaan rida naam mool la tabarra'u zimma la tubarra'u zimmatu almadmun illa ba'da an tabarra zimmatu daaminihi ka nga xamee ne nii dañu koo gàddul bor nañu xam ne nag nekkul kuy mucc complètement lu dul ka ka gàddul bor ba mucc ay balaa mucc complètement ka ka gàddul bor ba day fay waaye ka ka gàddul bor ba bu amee lott ci fay dañuy delluwaat ca moom ma nga xam ne moo gàdd woon bor boobee yi ngi noonu mu ne wa in bari at zimmatul madmuun bari at zimmatu daamin amma ka nga xamee ni nii moo gàddu woon bor ba moom bu dee ne ci diggante bi moo am fayal boppam ka gàddu woon ne ko danaa la fayal kooku moom jaanam wàcc na kenn du ko topp ci dara ndax bor bi duñ ko fay ñaari yoon loolee kon mi ngi noonu te mooy kon nit ki mën nañ koo gàddul loo xam ne moo ko waroon a def léegi nag yàlla soppi jamono mu far am ñëw moom fayal boppam maadaama fayal na boppam ka waxoon dana ko fayal ku mel noonu kon doon na loo xamee ne nii luy mucc la lu mel nii xam ngeen lu bari la ñu koy jëfee ba xatta sunu banque yu bari léegi soo bëggee yenn prêt yi dañ naan il faut mu am ku garantir prêt bi ngir boo ko munta fay moom mu fay ko am maa la nekk ca banque yi ci ay riba moom yéen a ko gën a xam naam bokk na ci at yooyu ba tey laa tu'tabaru fi damaan ma'rifatul madmuun ki nga xam ne moo ñëw di gàddul nit ki àqam nekkul kuñ naan fokk mu xam waaj is yajuuz an yudmana rajul man laa ya'rifuhu ndax dagan na ci nit mu gàddul garanti koo xam ne xamu ko albatta musu koo xam mukk li anna damaan tabarruun wa ihsaan ndax garanti du dara lu dul mooy coobarewu ak la nga xam ne mooy sàkku rafetal masalan tey yaa ngi dox ci mbedd mi su benn waay mi ngi poñe benn waay na ko doo fi bouger te joxoo ma sama dix mille masalan yow xamoo ki mu poñe xamoo ko sax nga ne waa ji kaay kaa ñu dem man ma jox la dix mille bàyyi ko kaa ñu ànd ma dem ma jox la dix mille yow nga gàddul ko fekk sax xamoo ko loolu dana mën a nekk kon lu tax mooy nit ki nga gàddul ko ay borom loolee ak jaamu yàlla la boo xam ne nii tamit lu bari ci doomu aadama yi sax suñ jamono te yi dañ koy sàggane waaye gis ngeen kii di Xadija keroog ba muy dalal xolu suñu yonente sallallahu alayhi wa sallam ba mu dajeeg Jibril alayhi salaam ñëw ak tiitaangeem bokk na lu mu ko waxoon wallahi la yuxzika allahu abada xamal ne yow yàlla du la toroxal mukk ca bokk na ci lu mu ko wax yaay def nangam yaay def nangam wa taxmilul kaal la yaay fekk heure bu nit ki amee problème jaaxle nga ñëw gàddul ko gis ngeen lu kon ci bunti yiw la bunti jaamu yàlla la nga xam ne sa mbokk julit lott na ci lu mu waroon a def yow nga ñëw garanti daal di ko koy daal di ko koy fajal mi ngi noonu bokk na ci ba tey la damaana illa fi xaqin saabit fi zimma lii di garantie du mën a du du mën a nekk lu dul ci àq boo xam ne wir na sax na te mooy waa ji nga xam ne dañoo ñëw ñu am problème ci bor yoral nga ma yorulu ma la loolu du ci dugg wala cinquante mille nga ma yoral mu ne déedéet trente mille laa la yoral la nga xam ne moom la ñu mën a garanti mooy loo xam ne da caa sax aw fii ma huwa mi ngi noonu aayulun li thubut wala loo xam ne mën naa yóbbu ci ak sax kal jaalati masalan lu mel ne la nga xam ne mooy jaala bi nga xam ne mooy digaate ba nga dig ci ku def nangam ñu defal ko nangam ngi noonu masalan benn waay ne woon sama oto bi réer day ku ko indi dinaa ko jox nangam loole ba nga xamee ni nii dem na ba gisatuñ ko am ko gàddu ne man day loolu mu waxoon ku ko ku ko def danaa ko ko defal ca kenn defagu ko xamuñu ndax daañ koy def waaye mën naa nekk loolee lislaam nangu loolu amma la nga xam ne moo ci mujj la ba'sa fi ta'addudi dumana dara nekkul ci mu daal di bari ña nga xam ne ñoo garanti masalan benn waaye ngi nii bàyyi na ay bor mu am ay xaritam wala ay frère am yu ñëw ne ñun dañ ko fay mu ngi noonu lu am ñaar wala ñett yoo xam ne ñoo garanti ni ñun lii ñun dañ ko fay loolu dana nekk dana mën a nekk ci sharia bu ko defee ñoom ñëpp la ñuy topp naka noonu it kama la ba'sa an yadmana daamin ghayruhu aydan nit ki it kenn kese mën naa garanti nit ñu bëri i nga noonu ay nit ñu bëri am ay àq mu ñëw na leen ñii bàyyi leen leen man danaa fay lépp yaa ngi dégg ni mbooloo mën a fayale kenn noonu la kenn mën a faye la mbooloo ci lu aju ci wàllu googee loolu bi mu ko waxee ba pare li ci des mooy dafay joxe exemple ci ni ñu war a bindee la nga xamee ne nii mooy demande boobu bu doon day am allahuma loolu mbir la boo xam ni mënees na ko bind mënees na ko bañ a bind lii valable ci la ñuy bindal ca wàll gi mën na bañ a valable ci la ñuy bindal ca wàll ga ca des loolu kon moo tax ba moom loolu dañ koy bàyyi ba dal ci beneen bi allahuma comme niñ ko doon waxee su dee ne lii ñu wax ci wàllu garantie bi am na koo xam ne question la bu jëm ci loolu incha allah mën nañ cee tontu bu dee question bu jëmul ci loolu ñu bàyyi ba darsi bi pare mais bu dee lu jëm ci garantie nit ci ay bor wala garantie nit ci liggéey bu mu waroon a liggéey incha allah bu dee am na ci kenn ko am question bala ñu koy fàtte naam bismillah waaleykum salaam wa rahmatullah ndax ki nga xam ne dafa gàdd bor bi dafay laaj xaalis wala yéene bi rek doy na ala kulli xaal bokk na ci li ñu waroon a jàng mooy tuxal bor yóbbu ko ci keneen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da daan wax ne képp ku ñu toppaloo ku mën a fay ngalawaay na ko topp ca bàyyi ko ko yoraloon bor looloo tax ba yow am bala ngaa dem di gàddu ne danaa fay bor sangam day fekk ne man nga koo fay wala yaakaar nga waxtu wi ñu war a fay bor bi balaa ñëw da nga am loo ko fay mais soo amul yaakaaroo loolee doo dem di yokku joote te mooy kii daa lottu yow nga dem lottu bëgg koo remplacer loolu mënta nekk kon fokk mu doon koo xam ne mën nga koo fay léegi-léegi wala boog dat yañ wax balaa ñëw yaakaar nga loo xam ne jot nga ko pour fay ko wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam ala kulli xaal waaw kon mën nañ dem ci suñu da bind bi ci topp bi ci topp mooy alkafaala alkafaala ak damaan daani ko soriwul moo tax mu ne taarifuha buñ la ko doon xamal alkafaalatu hiya an yaltazima moom mooy mu daa di gàddu jaizu tasarruf ku lislaam nangu ak jëflenteem bi adaayi xaqin waajib ci joxe aq boo xam ne dafa war ala shaxsin ci benn waay ah waaw suratul kitaab bi de dama doon ñu tëb ko dama doon ñu tëb ko de waaye waaw waaw waaw parce que comme dama dañ ne comme moom loolu moom benn exemple la rek boo xam ne lii valable ci lii mën na bañ a valable ci li ci des voilà moo taxoon ñu jëloon kafaale bi kon mu ne ñu ngi noonu kon bi adaayi xaqin waajib ci mu joxe àq boo xam ne dafa war ala shaxs ci benn waay aw yaltazima bi ihdaarihi ladaya almaxkama kafaala comme niñ ko waxee sorowul ak damaan ca mooy rek benn waaye ngi am na àq bu war ci moom masalan benn maçon gi waroon a tabax li tabaxu ko fitna nar a am nga ñëw ne borom kër gi bàyyil man danaa ko yeggale loolu mooy gàddul nga ko la mu waroon def walla boog tey jii da ngay gis lu bari ci ay nit avant ñu leen di juger ñu ngi leen tëj ci kaso yi muy le metti ñu boole ci ñaan suñu benn ndaw ba ñuy wax imam mam góor njaay ñu ngi ko jàpp ay weer yi mi ngi tëdd ci kaso bi te wallahi la mu wax gis nañu ne waxul lu dul waxi dëgg ba muy défendre ci ne yàlla yónniwul gannaaw yonent yàlla bi ab yonent loolay fitna dal ko ci ñu ngi ko ci tëj tey boo demoon ci suñ prison yi gis ñoo xam ni ay erreur de justice tax na ñu tëj leen suñ sañ dégguma koo xam ne onze ans lañ ko tëjoon xaw ma ci temps yi passé ku ñu am na kon tëj parce que lu mel noonu ay erreur jàpp la tëj la sans juger la lu ci bëri bu ñu la jugé day fekke ne lañ la sant lañ la jiñ sax defuloo ko léegi nag da daan am lu ñuy tuddee garant mooy sañ saalix ñëw ci juge bi ne kii kat liñ koy tuumaale man maa garanti ne bis buñ koy attee dana dana ko indi wala lim ne dana ko fay si weer sàngam bis sàngam man maa ko garanti danaa ko indi su ko defee ñu wóolu la ci loolu heure buñ koy attee nga jëli ko indi soo ko jëliwul indi pen yañ ko naroon a teg ci wàllu alal yow lañ koy teg loolu mooy alkafaala boobee bu ko defee loolu lan mooy atteem xukmuha alkafaalatu jaiza gàddu loolee di responsabilité day lu dagan la li qawlihi taala qaala lan ursilahu ma'akum keroog ba yanquba di wax doomam ya duma yónni sama doom ji di binyamin di rakk yusuf mi ànd ak yéen xatta tu'tuuni mawfiqan min allah lu dul da ngeen may jox waat gu ngeen waat muy kollëre gu ngeen fas gu jóge ci yàlla la ta'tunnani bihi illa an yuhaata bikum ne kii da ngeen ma ko delloosil xanaa lu dul yéen ñépp dañ leen a not ci kattan kon loolu yanquba waxoon doomam ya jëkk nañ koo laaj yuusufa mu jox leen yuusufa bañ demee gisatul yuusufa yi nga noonu lu jege fanweeri at tey ñu wëlbati ko la ko jox ñu rakk yuusufa ci seeni lay mu ne nag bala ma leen koy jox da ngeen di garanti fi waat ci yàlla ni da ngeen ma ko delloo sil lu dul dañ leen a not yéen ñëpp ci kattan loolu la ca borom téere bi jublu rek muy kon nit ki am nga droit garantil nit ne bi sàngam biñ ko war a attee danaa ko indi wala bis bu mu waree fay danaa ko indi ila axiri loolu la jublu ci wàll googee mu ne wa qawlihi sallallahu alayhi wa sallam laa kafaalata fi xaddin nañu xam ne lu aju ci wàllu luwaa nag kenn du ko gàddul kenn masalan waa jaa ngi nii njaaloo na ñu war koo duma ndax doomam wala xaritam wala frère am am na droit ne duma yooyu kaay leen duma ma ko la wallah dañoo war a dagg loxoom ndax am na keneen ku ay jegañaalam ku ñëw ne nañ dagg sama loxo man la wallah mooy doomu aadama moom lam def du loi buñ ko war a teg loole moom kenn du ko ko gàddu mi ngi noonu gannaaw ba wa qawlihi sallallahu alayhi wa sallam az-zaim gharim wa zaim huwa al-kafil yonent bi ne xam ngeen ki nga xam ne day moo gàddu kooku day gàddu nay bor te mooy que jël responsabilité bor ku mel noonu na xam ne bor day tegu ci loosam doonte ni lébu ko waaye maadaama moo garanti ne moo koy fay loolee day wëlbatiku tegu ci kaw loosam lan mooy ay atte yu mën a feeñ ca biir mi ngi noonu ahkaamuha ahkaamul kafaala hiya atte ya mën a nekk ci gaddu gaddul doomu aadama responsabilité nekk ne yii muy bëgg a tudd la jiitu yustaratu fi lkafalati marifatu lmafu makfuul daan charto ci responsabilité jël place nit ki kan kay defal moom foog nga xam ko wa bi xaasatin kafalatu lixdaar rawatina nag la nga xam ne mooy gàddug danaa ko teewal bis ba mu waree fay wala bis buñ ko waree atte fokk kooku nga xam waa ji kan la ñu ngi noonu ñaareel ba yu'tabaru fil kafaalati ridal kafiil moom fokk ka ñëw ne dafay garantir ne man lii kat danaa ko teewal bis sangam kam kay defal dañ koy laaj ndax d'accord nga wala d'accordu loolu mi ngi noonu ñetteel bi in kafala shaxsu kafalatal kafalatul maliya kafalatu maliya su dee nit ki dafa gàddu gàddug alal ju mu gàddu fa maatal makfuul ka nga xam ne nii dañ koo gàdduloon bor ba daa di faatu damanal maal waa ja gàddu woon bor ba moom mooy yor responsabilité fay bor ba bi wa in kafala kafalata ni ngi noonu wajihin mooy su dee ne nag daf koo gàddu gàddul goo xam ne wax ji wa ihdaar mooy ne dana ko indi teewal ko wa maatal makful fala shay'a alayhi ku mel noonu dara du ko ca war te li mu bëgg a wax fii rek mooy ki gàddu woon dana fay bor sàngam diw mi dinaa ko fayal ay borom yàlla dogal kooku dee yow mi taxaw ne dinaa ko fay ay borom yow la ñuy topp amma bu doon tane da nga ne diw dey buñ ko tëj bis biñ ko war a atte danaa ko indi teewal ko yàlla dogal mu dee ci dee moom kenn du la wax demal ca bàmmeel ba indi ko donc moom mbir yooyu jeex na loolu la wax ci wàll googee ñeenteel bi mu ne mata ahdara alkasilu almakfuul bilwajhi képp koo xamee ni nii dafa gàddu woon ne danaa teewal kee nga xam ne nii moo àq dal ci kawam mu daal di koy teewal ci kanamu imaam amaam alxaakim bari at zimmatuhu keroog ba mu ko teewelee ci kanamu imaam la nga xam ne mooy responsabilité moom teggeeku na ci moom juróomeel bi laa tasixu alkafaalatu illa fi alxuquq allati tajuuzu niyaabatu fiha du dagan ñuy gàddu lii nga xam ne mooy responsabilité lu dul àq yoo xam ne day dagan ñu gàddu ke responsabilité mimma yataallaqu bi zimami kal amwal te lay aju ca la nga xam ne mooy kóllëre kóolite ya lu mel ne alal ya mu ne nag amma mi ngi noonu mu ne la nga xam ne nag mooy amma ma la niyaabata fiihi bu dee ne la nga xam ne islam du ca nangu ak wuutu nag moom kal xuduud lu mel ne loi yi ñu war a teg waaja wal qisaas wala fayante yi ñu war a fayante fala tasihu lkafaalatu fiiha boobaa moom du dagan ñu cay wuutante li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam la kafaalata fi haddin lii di gàddu responsabilité du am ca la nga xam ni mooy loi bu ñu war a teg nit ki kon daanaka day feddali li mu waxoon sànq rek mooy doomu aadama bi àq ya tegu ci kawam ci liggéey bu mu war a liggéey ca alal ju mu war a fay ci teew gu mu war a teew yooyu yépp mbokkum julitam mën naa jël responsabilité ne dana ko taxawal ci loolu amma nag bu dee wàllu loi bu war a tege ci kawam loolu moom kenn du dem di ko gàddul kenn bàyyi du ko gàddul doom doom du ko gàddul bàyyi mi nga noonu mooy la nga xam ne mooy alqisaas ak xadd loolu mbokk moo aju kon ci li ñuy tuddee kafaala boo xam ni daanaka mook damaan boobu soreewuñu mi ngi noonu kon tarul ñu ci laaj ay question mën nañ bàyyi ba pare ca ñu jël la nga xam ne mooy bind bi nga xam ne moo ci topp bind bi ci topp yow mu yor sa téere mooy li ñu tuddee a rëhn rëhn moom mooy garantie boo xam ne moom matériel lay doon kafaala bee ñu jàngoon ak damaan day nekk garanti nit ki ñëw taxaw garanti amma rëhna yow mi yor sab téere mu ne taarifuhu huwa tawsiqu daynin moom mooy saxal borba bi aynin ci matériel yumkinu istifauhu minha ci matériel boo xam ne mënees na caa fayoo bor ba aw min samaniha wala boog ci njëgam kon loolu moom mooy la nga xamee ni nii mooy garantie te jii masalan soo demoon ci borom bitig yi xaw ma ñu ngi koy def léegi am déet soo ñëwee jënd boisson dañ naan la da nga fiy bay cent francs garantie soo indiwaatee butéel bi ñu jox la sa cent franc soo ko indil ñu fayoo seen cent franc lu mel noonu day am ci lépp loo xam ne waa ji day ñëw di ko leb su ko defee yow tey da ngaa ñëw nga leboon côté ji lii di benn portable masalan nga garanti ko benn xar ko kat lii mooy garanti weer wi dee dinaa la fay ñu dem yow fay si woo su boobaa dañuy xool xar mi ak portable bi ñoo méngoo prix day féetewoo am xaram mi ngi noonu bu ko ëppee wala mu yées ko loole moom daañ ko jàng ci kanam mu ne wa zalika ka an yastadiina shaxs min axar daynan mi ngi mel ne rek benn waay ñëw dem ci keneen lépp ko ak bor fa yaklubu daa'ini minhu mu sakku ci moom ka kay lebal wada a shay'in taxta yadihi ci mu jël dara teg ko ci loxoom min xayawaanin aw aqaaraatin ci ne loolu dafa nekk ci ak jur wala ci ay teere aw xayrihima wala lu mel noonu li yastawsiqa daynahu ngi lii mu daal di saxal dëgëral borom boobe fa matta xallal ajal heure buñ demee ba mu yëg si dig ba walam yusaddid lahu dayna ca fayu ko borom boobe istawfaahu mimma taxta yadihi mu daal di fayeeku ca la nekk ci suufu loxoom fa daa'in yusamma murtahinan ka nga xam ne mooy leb leble moom la ñuy wax ka nga xam ne moom la ñu tayle wal madinu yusamma rahinan ka nga xam ne mooy leb moom la ñuy tuddee kay tayle wal aynu la ñuy joxe almarhuna tusamma rahnan amma la ñuy joxe ca tayle ga moom la ñuy tuddee rek ab tayle kon mbokk loolu mooy la nga xamee ni nii lu dagan la ci sharia ñu bari dañ koy jëfe waaye sharia buñ xesee ba xam ne lii dagan na teewulit dafay am ay atte yuy aju ci kawam moo tax mu ni xukmuhu nan la lislaam gise jëflante googe mooy lebal ma jëlal lii garante wala lebal ma nga ne ko ah bala ma laa lebal da nga indi loo ko garante xukmu rahnu jaiz lool day lu dagan la bi qawlihi taala ndax la suñu boroom wax te yàlla dogal ñu ko doon tafsir tafsir bi passé wa in kuntum ala safar su dee da ngeen nekk ci tukki walam tajidu katiba ca amuleen kenn ku mën a bind bor bi fa rihaanu maqbuuda kon nañ joxe tey la goo xam ne dañ koy jox mu jël ko kay leble loolee nekk la nga xam ne mooy garanti wa yaqulu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa yuxlaqu rahnu min saahibihi lazi rahana nañu xam ne kenn du xañ la nga xam ne mooy lañ tayle ka nga xam ne moo ko tayle si lahu xunamuhu dana ko ñeel lépp loo xamee ne nii meññee na ca wa alayhi xurmuhu dana nekk ci lépp loo xam ne perte na ca ay wàññeeku na ca mi ngi noonu ca li waral loolu mbokk boo demee ci jëflante bu dul jëflante lislaam da ngay gis ne kiy leb si tayle mën na am lam tayle garanti ko moo ëpp valeur lam leb sax dix fois waaye heure bu dig ba jotee te fayul lañ garanti woon dañ koy jël rek waa jaka garanti woon daal di perte amma islaam gisewul noonu islaam moom dafa gisee ni kat la nga xam ne mooy garanti firiwul ne waa ji ba mu garantee daa ñàkk waaye kay ci garanti mbir bu demee ba dikk fay munta fay dañuy xool lam garanti woon ñu jaay ko wala estimer ko xool bor ba nan la ca toll génne ko ca la ca des ñu delloo ko fa nga xamee ne nii moo ko garanti woon gannaaw ba it loolu yonent bi alayhi salaam wax lahu gunamuhu ki ñëwoon garanti tey masalan ak juróom jur googee la ca juddoo loolu moom moo ko moom ki garanti woon ab toolam la ca meññ moom moo ko moom heure bu ñu demee bay fay bor ba dañuy évaluer lépp buñ ko jaayee su méngoog bor ba xëyrun su ko ëppee dañ koy delloo la nga xam ne moom la moom la yayoo mi ngi noonu su ko defee dafa mel ni est-ce que bilal nadd bi jotul voilà léegi kon xam na mbokk incha allah ci rëhnu bi dañuy yem ci xukm bi bu ñu fa yàlla da- dajalewaatee ñu dellu ci ahkaam yi incha allah li ci des ñu jagleel ko la nga xam ne mooy ay laaj wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain في المدينة مدينة وأخذ منه شعيرا لأهلي مجلت موم لدي أي أرج يو خمني موم لدون دون دلن جبوتم تا kon loolu day wane ne mbokk lu mën a nekk la muy wane it ne pour wane rek njàngaleem l'islam ne dara jëru cee xeeb dara jëru cee xeeb mas naa dégg docteur Mouhamed Lo boobu hafizahullah di nettali benn mbokk boo xam ni dafa nekk fii ci Afrique du Sud mu am ci commerçant yi foofu boo xam ne jullit la am benn jigéen boo xam ne daa ñëw tayla ko lam ko tayla woon ba mu waree fay si fay siwul ñu toog lu yàgg ndaw sa ñëwaat ca magasin ba borom bitig bi daa di yëkkati xaalis daa di koy jox mu ne ko lii lan la mu ne ko sa or ba nga fi tay la woon de ba nga fi jël marchandise ba ma la gisul jaay naa ko valeur bi nii laa ko jaayee mu ne léegi nag lii moo ci des mu ne ko ah man loolu génn woon naa ci sama xel ndax maadaama tay la naa ko fayuma kon perte naa ko mu ne ko noon ñun suñu diine gisewul noonu suñu diine daa gisee heure boo taylee dara te loolu ëpp la nga leboon la ca des dañ la ko war a delloo mu ne ko waa loolu mooy ban diine mu ne ko diine lislaam ndaw si loolu ko dugal ci lislaam histoire ba gudd na mais ba mu demee seen dëkk gannaaw loolu ñu bari bari dugg nañ ci lislaam te masala bi rek moo leen ci dugal masala bi rek moo leen ci dugal muy wane ne kon jullit ñi dañu war a jàng seen diine te mooy bari na tey ay jullit yuy jëflante ci commerce te yii yëpp jànguñu ci dara yaa ngi dégg te boo xoolee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan dox ca marché ya di jàngal nit ñi yi demee noonu rek moom moo taxoon ni ngi noonu kon wallahu subhanahu wa taala aalam incha allah kon bu dee mbokk yoo am nañ ci yeneen laaj yu aju ci dars bi wala lu génn dars bi de so nañ ci non ah waaw ki nga xam ne dafa garanti ak jur loolu dana ñëw ci jàngi ñu war a jàng ki nga xam ne mooy ci yor jur gi yonent bi alayhi salaam dani ka nga xam ne mooy dundal ku mel noonu moo am droit di ko jëfandikoo masalan tey jii bu doon tane ne ak jur la goo xam ne dafa am soow bu ñuy rat ka nga xam ne moo koy dundal mooy rat soow ma di naan ki ñu garanti woon aw fas su dee fas bi ñu ko garanti moom moo koy dundal moo am droit di ko war ba baa mu koy delloo loolu looloo tax yonent bi alayhi salaam danaan kay am droit jëfandikoo jur ga mooy ka gàddu ab dundam loolu na doon ka ka indi wala ka nga xam ne moo ko yor incha allah dana bokk ci at yi jàng ci kan ci wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam ala kulli xaal bismillah naam waaleykum salaam chair mooy li ñuy tudd orge xam naa loolu bareetul duñ ko gis léegi waaw so dee orge loolu benn façon pepp la boo xamee ne nii jamono yi lañ ci dañ ko doon lekk lu bëri daanaka boo demee sax naar yi lekkatuñ ko léegi mais loolu dañ ko daan lekk lu bëri mu ngi noonu genre dugub la daal incha allah yonente bi alei salatu wasalaam te la joxe woon mbubbam bi mu daan sol jox ko yahud bi jëre yahud bi lebal ko loolu te it yonente bi alei salaam ci ak maandoom xam ngeen du dem ci ab jurit naan ko jëlal sàmb bi mu lebal ma pepp ne kon jurit bi du ko du ko nangu da ko koy jox waaye pour bañoon a sonal kenn moo taxal mu dem ca yahud ba jox ko ko jëree kooku lebal ko mi ngi noonu ba dañ naan bi muy faatu mbubb ma ma nga ca moom sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ba la ko jurit ñi dem jël saako pepp joxaat ko ko mu delloo leen la nga xam ne mooy mbubb yonente ba sallallahu alayhi wa sallam naam ala kulli xaal naam bismillah naam mu ne waaw waaw wa- waaw waaw Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. waa waa la kuli xaal day wax rek ne ci gàttal lu bari ci dëkk kaw yum jotee visité la fa am mooy ñi am alal nit ñi bu ñu sonnee dañu ñëw di leen garanti seeni charrette seeni machine di leb ci ñoom xaalis waaye bis bi nga waree fay boo fay suwul perte nga la nga fa garanti woon loolu la ko waral mooy ñàkk a xam mooy ña koy garanti xamuñu ña koy leb xamuñu waaye daal nañu xam ne garantie firiwul ci ni la ngay fay boo ko fayul da ngeen di kitoo déedéet garantie mën na yiis bor mi ngi noonu donte ne ni kay leble dafay war bala nga lebal kenn nga garantie loo xam ne dana ca mën a fayoo ko waaye nag mën naa yiis bor bi su yiisee bor bi heure bu bo- waa ji waree fay fayul ñu naan ko xam nga day maa la lebaloon cent mille xar mii nag ñëpp xam nañ ne mënut a paase cinquante mille léegi nag yaa ma yoral cinquante mille loolee dañuy gis noonu amma bu dee xar mi xool nañ ko muy cent cinquante mille su boobaa dañ naan xar mii de ku la xam ne cent cinquante mille lay jar ñu ne waaw am sa cinquante mille la ngi nii waaw cent mille yi fayoo naa ko loolee da ngay gis ni loolu ab atte ñaar ñu maandu ñooy atte ne kat lii lii la war a jar imma ñu jaay ko keneen wala moom mu mu remboursé ko la nga xam ne moo tegu ca bor ba wallahu subhanahu wa taala alam naam naam waaw naam na na ndax comme loolu américain yi waxoon loolu moom la ñu tuddee jaala bi ñu waroon a jàng masalan waxoon nañ ko ci Bin Laden waxoon ko ci Saddam Hussein waxoon ko ci ñu bëri te mooy ku ko feeñal daañ ko jox temps loolu moom mooy li ñu tuddee ak jaala mooy ku de ku def nangam ñu def nangam loolu nag mi ngi dépendre ci yow la ngay sakku ndax l'islam daganal na ko wala daganulu ko loolee ku ne xam ne américain ñoom la ñuy def moom du du l'islam daganal am waaw waaw moo tax ma ne américain ñoom la ñuy def ku ne xam ne ne moom du du lu l'islam gërëm masalan ba ñuy wër sa bun la den tegoon ci moom cent mille dollars comme ñaata million du la ñu xam ne dollars lañ tegoon ci képp koo xam ne ni indi na ko loolee ku ne xam ne nag ñoom ñoo gënoon a bon jëf mi ngi noonu bun la den la ñuy jort ci moom wallahu subhanahu wa taala alam mooy mujahid la woon fi sabilillah donte ne dañ am yu ñu d'accord ak yu ñu d'accordul ak moom rahimahullah waaye américains yi ñoom li wóor ca wóor mooy lañ doon def moom ak jaay doole la woon kon loolu moom du lu l'islam di gërëm amma li ñuy wax dénonciation anonyme loolu lu war a am la yeneen ci suñu borom mu ne wa man yaktu wa man yaktumuha fa innahu asimun qalb wala taktumu shahada wa man yaktumuhu fa innahu asimun qalb loolu ñu ngi ko doon jàng yaakaar naa ci àllarba bi passé mooy seede julit waru koo nëbb ki nga xam ne oto la fiir ne fii nit daw nga xam numéro bi numéro boobu nga dem jox ko police njëree kam fiir ñu jox ko ak xam loolu da ngay gis ne lu lu lu jara lu lu war a def la lu war a def la heure boo xamee ne nii tey jii ab atte am na rawatina nga gis ñu tuumaal koo xam ne nii moom du ca dara te yow nga xam kan moo def crime bi loolee nga dem seede ca yàlla tax nekkat crime bii diw moo ko def loolee da ngay gis ne lu l'islam gërëm la ñàkk koo def borom bi subhanahu wa taala nee na borom xol bu baaxul mooy def loolu wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam mu ne waaw waxu waxul waaw waaw daf lay liggéeyal ca ne la da ngay bàyyee bu ma pare nga doog a xam lu may fay lislaam gërëmut loolu islaam gërëmut loolu islaam lim gërëm mooy bala ñoo liggéey ab liggéey ñu xam ñaata lañ ciy fay loolu mu ngi noonu léegi-léeg am koo xam ne day ñëw ne la nga ne ko liggéeyal ma lii mu ne la ah man daal ñaata laa lay fay mu ne loolu ah non loo ma jox man baax na ku mel noonu moom moo fay boppam fitna du am foofu loo ko jox moo xam bu ko arrangé wul ba moom mbiru boppam la waaye daal bu dee loolu amul ay nit bala ñu siqub liggéey dañoo war a xam liggéey bi naka lay demee na doon ci temps lañ koy liggéey muy ay journée wala na doon ci dañ koy liggéey ci lu ñu natt xam ko waaye liggéey ba pare doogoo nag négocier fay loolee day jur fitna islam gërëmut loolu waaw xam naa ñu mujjee ci technicien bi rek incha allah waaw ki doon ki doon xe ah ki reyoon jaaluuta yonent yàlla daawuda ci boppam moo rey jaaluuta moo tax suñu borom ne jox na ko atte jox ko kii nguur jox ko nangam ndax yonent yàlla daawuda it mooy dafa boole woon ñaar moom buur la woon yonent la woon kon daawuda alayhi salaatu wassalaam moom moo bokkoon ci armée taaluuta daawuda la yàlla kattanaloon moom moo rey jaaluuta yàlla def ko buur gannaaw jaaluuta gannaaw ba ko yàlla defee mu nekk yonenti yàlla nekkit la nga xam ne mooy buur mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain